noonu Yeesu wax leen itam léeb wii ngir xamal leen ne war nañoo sax ci ñaan te nee na dafa amoon ci dëkk benn àttekat bu ragalul yàlla te faaliwul mbindeef amoon na itam ca dëkk ba jigéen ju jëkkëram faatu ju daan faral di ñëw ci moom naan ko àtte ma ak sama noon àttekat ba bañ lu yàgg waaye am bés mu ne ci xelam ragaluma yàlla te faalewuma mbindeef waaye jigéen ji lakkal na ma kon dinaa ko àtte ngir mu bañ a tee ñëw sonal ma di ma rey ak ay wax borom bi tegaat ca ne leen bu baax li kër bu bon boobu wax ndax yàlla du àtte jub mbooloo mi mu tànn te ñu koy ñaan walla guddi ak bëccëg ndax dina leen xaarloo maa ngi leen koy wax dina leen àtte jub ci lu gaaw waaye bu doomu nit ki ñëwee ndax dina fekk ngëm ci àddina Yeesu waxaat léeb wi nit ñi foog ne jub nañu te xeeb ñi ci des mu ne dafa amoon ñaari nit ñu dem ca kër yàlla ga di ñaan kenn ki ab pharisien la ki ci des juutikat pharisien baa nga taxaw di ñaan ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ni ñeneen ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bii ay bés gu nekk damay woor ñaari yoon di joxe asaka ci lépp lu ma wut juutikat ba moom ma nga taxaw fu sori te bëggula sigi sax xool ca asamaan sa waaye ma ngay fëgg dënnam te naan yow yàlla yërëm ma man mi bàkkaarkat yéesu teg ca ne maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom la yàlla àtte ni ku jub waaye du pharisien ba ndaxte képp ku yëkkatiku des na la suufeel te kuy suufeelu ñu yëkkati la amoon na ay nit ñuy indil yeesu ay liir ngir mu teg leen ay loxoom bi taalibe ya gisee loolu ñu gëdd leen waaye yeesu woo leen ne bàyyileen xale yi ñu ñëw ci man te bu leen leen tere ndaxte ñi mel ni ñoom ñoo yelloo nguuru yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku wuyful ni xale nangu nguuru yàlla doo ci mën a dugg benn njiitu yawut laaj ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ba am wàll ci dund gu dul jeex yéesu tontu ko lu tax nga wooye ma ku baax yàlla rekk a baax xam nga ndigali yi bul njaaloo bul boom bul sàcc bul seede lu dul dëgg teral sa ndey ak sa baay njiit la ne ko loolu lépp sàmm naa ko li dale ci sama ndaw ba tey bi Yeesu déggee loolu mu ne ko lenn rekk moo la desee jaayal li nga am lépp séddale ko miskin yi te dinga woomle ca asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man bi nit ka déggee loolu mu am tiis ndaxte ku bari woon alal la Yeesu xool ko daldi ne ci nguuru yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb boroom alal dugg ci nguuru yàlla ñi doon déglu daldi ne kon nag ku mën a mucc yeesu tontu ne li të nit ñi tëwul yàlla noonu piyeer ne nun de dëddu nanu li nu am lépp topp la yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax képp ku dëddu kër wala jabar wala ay doomi ndey walla ay waajur wala ay doom ngir nguuru yàlla dinga am tey ji ay yooni yoon ak dund gu jeex ëllëg yéesu wéetoo ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen nu ngi dem yerusalem te li yonent yi bindoon lépp ci mbirum doomu nit ki dina mat dinañu ko jébbal ñi dul yawut ñu ñaawal ko saaga ko tifli ci kawam ginnaaw bu ñu ko dóoree ay yar ba noppi dinañu ko rey waaye ca ñetteelu fan ba dina dekki waaye taalibe ya dégguñu li mu leen doon wax kàddu yooyu ump na leen te xamuñu li wax yeesu yooyu tekki bi yeesu di agsi dëkku yeriko am gumba gu toogoon ca wetu yoon wa di yalwaan naka la gumba ga dégg mbooloo mi di jàll mu laaj lan moo xew ñu wax ko ne yeesum nasaret moo fay jaar noonu mu yuuxu ne yéesu sëtu daawuda yërëm ma ñi jiitu woon gëdd ko ngir mu noppi waaye muy gën a yuuxu naan sëtu daawuda yërëm ma noonu yéesu taxaw santaane ñu indil ko ko bi mu jigesee yéesu laaj ko ne loo bëggoon ma defal la ko mu ne ko sang bi dama bëgg a gis noonu yéesu ne ko na say bët gis sa ngëm faj na la ca saa sa mu daldi gis noonu mu topp ci yéesu di màggal yàlla mbooloo mépp gis loolu di sant yàlla